Depuis hier, t'écoutes cette musique, tu commences à nous faire chier. Voilà, je te jure, ça m'a raisonné ça. Moi, t'as même raisonné na yow. J'aime trop la chanson, voilà. Moi aussi, j'adore. Ça m'a trop frappé. C'est mes chouchous. Oh. Je pense pas que je vais mettre une perruque aujourd'hui. J'ai envie de mettre celle-là, mais franchement, il fait trop chaud. Pourquoi D'accord, regarde cette blague, qu'est-ce que c'est Oui. Ça passe. <laughs> on est en été maquillot. defal perruque mm. bi rek. tu peux la coller genre. je suis assez belle comme ça. non attends je te montre tu tu peux la coller. tu tu attrapes nii. nga takk ko comme j'avais fait pour ma dégager ko comme ça ça va pas te gêner. ok. elle est où la la perruque rouge. la coupe carrée rouge. quelle coupe carrée rouge. la carrée. la coupe. pourquoi je te rigoles qui s'ouvre bizarrement comme ça. parce que moom laa war a sol moom laa war a boole sama tenue bu kii bi bu bleu bi. je sais pas non je l'ai pas amené. tu l'as pas quoi? je l'ai pas amené. Racky coupe carré rouge bi ma doon jël pour nga indaale ko. tu l'as pas amené sérieusement? sérieusement je je rigole pas de damay. bleu sérieusement moom laa war a sol nii. mais pourquoi tu m'attaques? non mais attends je t'ai demandé d'amener la Racky tu me touches pas. tu me touches pas. tu as touché la perruque tu m'as pas dit de l'amener. Je ne suis pas obligée de Attends, tout le temps je regarde ma valise. Si j'ai pas vu la paix, voilà, ça va marcher pour toi. Parce que je peux pas comprendre. Yo, maman, grand, j'ai pas discuté. J'ai fait sortir ma paix. Même la double me dit, valise, tu l'as pas mangé. Laki, tu me l'as pas dit, tu l'as dit dans ta tête alors. Me fais pas chier. Attends, tu penses que je sais quoi pour te dire Laki, là, t'as obtenu. Je t'ai dit de prendre la paix. Pourquoi tu ramenes pour moi Ferme ta gueule. Je ne ferme pas ma gueule. Laki, il nous m'appelle. Laki, il nous m'appelle. Je fais, je fais. Il nous m'appelle, Laki. Il nous m'appelle. C'est pas ton stress sur moi. man ci joue pas mais rek lii dara yow. yaa ñàkk fayda yow. yaa ma gën a ñàkk fayda yow. kii ñoom ñu maa ngi dëkk Dakar di range sama benn di range lépp ma ne ko nañ jël perruque bi yow perruque bi. mais jaay ma njëkk a parler avec jaay ma njëkk a parler avec une personne. eh déglu. mais non mais bu ko defee perruque bi je peux pas mettre l'eau. tu m'écoutes. en fait euh, li taxoon ma énervé c'est parce que c'est pas la première fois mu ma koy def yàgg nañu ànd voyage yàgg nañu bokk liggéey ma dénk ko dara mu bàyyi ko sama kër donc sama m'a fait trop mal le fait que ma programme sol dara elle a laissé la perruque carrée rouge à Dakar sama sama ça m'a vraiment bouleversée parce que man dama bëgg di aligner li may sol di. organisée, mais elle est très désordonnée. Elle est très très désordonnée et moi j'aime pas du tout ça parce que moi je suis comme ça. Donc munuma nekk nit ku désordonné ba pare di ànd ak ku désordonné. Ça m'a fait trop mal. Donc looloo waral sama yaram tàng ñu jàppante et puis c'est pas la première fois ñu jàppante parce que ñoo dëkk ñooy fanaan ñooy defandoo lépp tout le temps dañuy jotee li ñuy jotee sax moo ëpp li ñuy euh, juboo comme ni ñuy wax rek ànd ànd moo yombul donc euh, c'est ça. Franchement, je déteste le manque de respect. Mais encore plus quand on me crie dessus ou qu'on me manque de respect devant les gens. Raki, waxumane damawara indi perruque bi. Donc pourquoi elle me fatigue avec ça en fait J'arrive pas à comprendre. Tu ne m'as pas dit d'amener la perruque. Tu m'as demandé où est la perruque. Elle m'a dit la perruque est là. Nous perruque mais elle l'a laissée là-bas. Donc à quel moment c'est moi qui devais amener la perruque non en fait xuloo bi mënoon na gën a sori xëcca moo tax ma calmé wu te su dul woon loolu moom ak xëcca laay boole si biir ñu xeex ñun ñun ñett ñëpp parce que sincèrement j'étais trop énervée j'étais beaucoup trop énervée euh, pour une chose minime comme ça elle amène un énorme problème pour rien en fait non sérieusement je ne sais même pas là où commencer mais Pape yàgg impie tey ngeen ma wan ni yéen seen manque de professionnalisme maa ngi lay wax benn moment wàcceel caméra mais wàcce ko parce que am na yoo xamante ne waruñu ko jàllale ay xale ay mag ku nekk nii toog duñu seetaan te ñii fi ñëw nii tey suñu naaw leen parce que suñu ay rakk lañ mais xoola ñee sànq ma jég saa yéeg ci kaw gis raki ak kiraa comme xaj ak wundu en plus may ñëw di intervenir ñoom ñaar kenn dégluwuma mais bu ma fi nag mënul am respect fii ma jóge dem sama yoon parce que xam ma lii lan la